def aussi à travers lii may def muy làmb ji mun na am ren ma tëgg comme mun na bañ a am ren ma tëgg mais def naa ne cinq ans yëpp chaque année maa ngi tëgg ay journée donc sama saison yi passée tëgg naa quatre journée mais comme que ren aussi làmb ji jaxasoo na jaxasoo ko xam ne doo tëb di jël comme ni ñu ko doon defee jël say million jox mbër pour jëmale déwén parce que benn stade bu bees am na coow li bëri na si stade bi ñii ñu ngi doon ne 32 milliards la chinois yi ñëw ne ñoom 7 milliards te donc la xam nga yëpp dafa nekk loo xam ne aussi foo dafa jot ñu leeral leneen li mooy que ne CNG renouvelé gu ñu woon parce que boobu la yaa ngi dégg coow li mbër yi fii suba gannaaw suba ak lan lu nekk ñu koy wax euh, CNG nekkoon en fin de contrat yàlla def na ministre bi renouvelé waat nañ ko donc dafa jot toog. waxtaanaat xam ne nii lañ tënkee ba xam ci fii lañ jëm bu nekkee man gis naa loo xam ne lu positif la ci wàllu làmb ji aussi damay tëggaat dama gisee loo xam ne tamit loo xam ne dalul sama xel sama xaalis am naa feneen fax ne war naa ko mën a def damay liggéey rek xale laa donc damay ñaan yàlla fu ma dugal cent franc jéem fa am même bu dee cinq franc maa ngi ko fe parce que kenn jëlul sa xaalis pour suul ko fenn waaw. Euh, année bi duñ la gis si làmb gi wax da koy visé wu ci Sidy waaw mun nañ ma gis comme mun nañ ma comme ni ma la ko xam nga stade bi dañ ko def mooy arène bi ñëpp foo déggoon ne leen symposium da nga naan 32 milliards 32 milliards grande surprise. lan mooy sa problème euh, arène bi wala CNG. non du question euh, donc arène bi da ci dem ci benn côté parce que bu ñu bëggee jël yenn frais yoo xam ne Ibama danga ko doon def doo ci génn. ñu bëgg a jël yeneen frais de plus moo que ne fii da ngay dem pour sànni sa xaalis doo ci dugg da koy def. Oh, sànni sax. tey lenn mooy que ne tey état bi waroon nañ mën a jël stade bi ñun fu ñu doon defee Ibama benn frais wu million millions wala 1 million war nañu mën a jël nañu tey 75 pour cent yëpp dañ ko may. parce que stade bi don la bu ñu leen may donc man dama mënut comprendre ñu may la dara au lieu nga yéwén si bëgg a jël ay loo xam ne c'est c'est vraiment euh, dépassé. ñu bëgg a jël li ñu ko bëgg a commencé defe nii ak ñoom seen waxtaan bi ñu bëgg a commencé mbër yi jël ñoo xam ne mos mosuñu kaas lenn nekk ci benn affaire pendant des années mosoo kaas Moussa Gueye mos nga ko dégg mu kaas euh, Khadim Gadiaga mosoo ko dégg mu kaas mosoo ko dégg mu kaas Khadim Kayre euh, euh, mais toog ba benn moment ñu ne stade bi taxaw na rek ñu jàpp na stade bi looloo ko ngi si bëgg si teg seen àdduna tax guddeeg bëccëg ñuy ŋàññi Alioune Sarr di wax leneen ak leneen dafa am loo xam dafa ñaaw gor moomu ko. Khadim Gadiaga ñaata at a ngi ni bëriwul donc kooku mënatuñu wax ne il est un lutteur en activité Moustapha Gueye kañ la retraité tey kii yu bëri sanction yu bëri ñu jël ko teg ko tey boo waxee ga dañ naan si phase la jógee parce que problème yu bëri ñoom ñoo koy indi lu bëri ñoom ñoo koy def foo gis tamit luy dox ci réew te amul sanction amul discipline day day day ñaaw donc ñoom. nga d'accord dama d'accord ak CNG à 100 pour cent si mais kan mooy jël xaalisam sànni ko ci ay ay ay zéro mais fii lu amul règlement amul discipline du dem CNG lii ñuy def ñu dañ ci dañ dañ ci ànd du si ñëpp du kii ab réew foo mu am nu ñuy doxalee ne aala aala beela beela mais bu ñu bëggee jël ne mbëri duñ leen dagg bu ñu bëggee jël ne mbëri duñ leen tegal ay règlement duñ leen tegal ay kii mais après nan nan lay mujje foo ñu teg ko donc seen kaas yi ñuy mujje fa la ñu mujje tey tey war nañ am gàcce ñu ngi nii Alioune Sarr jëlaat nañ ko man Alioune Sarr bu nekkoon ne dama gis loo xam ne lu anormal la wala maay njëkk a bokk si ñi nga xam ne damay wax mais gisuñu loo xam ne dafa mbër yi kaas ak ñuy wax yëpp seen propre intérêt te bu nekkoon ne mbër yi ñëpp ñëpp la à 100 pour nga a wax ngay gis ñuy wax ay ñaar ak ñett ñeent bëgg di rëy làmmiñ di ratatat bu dee ak bëccëg yan mbër nga gis ñu kaas yi kaasuñu si mais ñii ñi naan dañ leen dagg ay millions est ce que ñuy fayeeku 200 mille dagg nañu ay millions nañu respecté loo xam ne waruñu leen dagg mais bu ñu leen ne 16 nga ñëw promoteur bi daa jël xaalisam teg am ay sponsor ñeneen ak ñeneen signé ak ñoom contrat nga bëgg a toog ba 17 heures 18 heures ñëw bu ñu la ne lii doo ko def nga def ko bu ñu la ne diw waroo ko dóor fii nga dóor ko mais ne duñ la dagg fu ñu ko teg nañu bañ a def règlement si dëkk bi wala ñu ne lu waay neex def police amu fi gendarmerie amu fi def fi dama lay romb léegi ni nga yor benn matériel ba mu wër ko maa lépp doole dama ko bu dee yoon dama ci fekk foow nag ab réew fu ñu mën doon ci àdduna mu am règlement mu am discipline fekk loolu amul du dem waaw moo tax man ma gisee li nga xam ne gisaguma ko je préfère ma tegg sama tànk nii daaw da doon fekk ma jël ay mbër jox leen avance yoo xam ne pour 5 mois wala 4 mois sax contrat mais gisuma lu dal sama xel xiiroo bi bëri na ŋaayoo bi bëri na je préfère nag ma jël sama xaalis dugal ko ci leneen bu ñu ubbee jàmm boo loo xam ne lu leer la dal sama xel waaw ma jënd sama licence teg mais bu ma gisee loo xam ne dalu sama xel <coughs> damay neutre waaw donc waxuma ne bàyyi naa comme waxuma bàyyi mais li ma gis dalagul sama xel te ñii di kaas guddeeg bëccëg du ñoom ñooy référence pour ñu jox leen làmb ci du ñu ay référence nit booy kaas da kaas daal mais doo toog ba après sa propre intérêt tax ngay yuuxu leen booy kaas sport dañoo ne sport la c'est national c'est international booy kaas kaasala loo xam ne c'est pour l'ensemble de tout le monde loo xam ne intérêt mais pas sa problème mu intérêt bopp ay da nga bëgg ñu jox la CNG ay da nga ñu jox la directeur temps au temps tax nga jàpp doomu jàmbur wala jàpp ab kilifa yekk ko lu mel ne midi tey Alioune Sarr daa baax rek mais bu leen baaxul accusé nañ ko fi ay sàcc lu nekk ñu wax ko fi mais sàcc boo koy accusé ne day fekk nga teg si nga am preuve ñoom bu ñu amee lu ñu wax pour CNG di leen wax fan la xaalis dugal du CNG moo leen dem c'est le ministre des sports moom moo changé wu loolu mu tegal leen ko mais jàpp nit ki tey CNG ay kilifa ñoo fa nekk tey la ki yor règlement discipline trésorier bi lan la c'est un colonel xam nga un colonel nga taxaw naan ko sàcc nga te jàpp ko fenn saa yi daa lu ñu xool rek mais bu ñu xooloon ñoom ñëpp ñu ngi si kaso gi.